الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مبكي جلدي سنبرم تبارك وتعالى dafa wàcce alxuraan mu nekk luy gindi nit ñi nekk aw yoon woo xam ne yoonu tawfiq la ci dunduk àdduna gi ak dunduk alaaxira ci kaw képp koo xam ne ku ko gëm la boole ko di ko jàng di ko settental di xam li ca nekk boole ko ak di ko jëfe موتاخ سونو بروم تبارك وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم لان القران جي دا فاي گندي جيمي تي لا گنا جوب داي گندي جيمي تي گنا جوب موك جولي دي امنا اي خطبه يون ديفون سي لي ويسو جيمالي وون كو سوره الاخلاص خينا كوكو فكيو تيت نياكول نا دگلو نغاكو nu doon ko jàngat am jàngat mu gàtt moo xam ne yaakaar nañ ne la ca gën a fés ci ay njariñ tudd nañ ko ca ci ñaari xutba yu weesu muy benn silsila boo xam ne dañ koo fas yéene tudde qiraatun quraaniya muy njàngat mu aju ci lenn ci alquranul karim moo tax taxawaay bii ñu taxaw ci xutba bii day jëm ci loola rekk ci biir sil silsila boobu yi tey nag nuy taxaw jàngat gi ñu jëme ko ci jenn laaya ju nekk ci alquranul karim bëgg koo settantal xam maanaam yi waaye xam nga ne lii itam xamit lan moo yell ci nun mu doon sunu taxawaay ci laay jooji yi xëy na taxawaay bii laay ju du ci jeex waaye genn wàll gi dana ci jeex bu soobee yàlla ñu àggalee ko ci beneenu xutba laay jooji nag mooy laay ji gën ci alxuraanul karim li aay yi di bari bari bari ci alxuraanul karim ak li ñuy tedd tedd laay jooji mooy ji ci gën ubay ibnu kaab radiallahu taala anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo laaj jan laay ci alxuraan moo gën mu tontu ko ne ko yàlla akub yonentam day ñoo xam loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam laajaat ko ko ba muy ay yoon mu door koo tontu ne ko ayatul kursi allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum bim ko waxe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma ngi lay ndokkel ci xam-xam bi nga am ma ngi lay ndokkel ci xam-xam bi la yàlla jox lu reey ngok ab sahabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ndokkeel ci xam-xam lol laaj ak tontu mako andi indi ne ko wat na ci ki yore sama bakkan ne lay joji nga wax muy ayatul kursi yàlla jox na ko aw làmmiñ ak yaari tuñ làmmiñ ak yaari tuñ yoo xam ne day sellal boroomam ca taxawaayub aras kon laay ju doy waar la xaddis boobu yi muslim a ko génne bokk na ci ay ngëneelam xaddis bi nga xam ne buxaari moo ko génne jële ko ci abu hurayra bi nga xamee ne seytaane da koo feeñu mu jaar ak moom fa mu jaar ba mu yetti guddi saa bu ko jàppee ne ko danaa la yóbbu ci yonent bi mu jégglu mu bàyyi ko ba ci ñetteelu guddi ba Abu Hurayra jàpp ko ne ko tey moom faw ma yóbbu la mu ne ko bàyyi ma ma jàngal la loo xam ne dana la jariñ mu ne ko lu mu doon mu ne ko aayatul kursi Iblis ay wax de mu ne ko aayatul kursi soo xëyee jàng ko seytaane du la jege ba kero jant bi sox boo gontee jàng ko seytaane du la jege ba kero asamaan di set abu hurayra ñëw xëy si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa laaj ko mu nettali ko li xew mu ne ko sadaqaka wa huwa kadub fen day la baaxoo waaye gii yoon moom wax na dëgg loolu yi mu la wax ci ayatul kursi lu wér la xadis boobu xadiis bu wér la kon ndax mi ngi ci Buxaari bokk na ci ay ngëneelam ne saxoo jàng ayatul kursi ci gannaaw julli gu nekk day tàbbal nit àjjana te defe naa ne tàbbi àjjana moom ñëpp moom lañ bëgg kër kër ji yëpp dugg ak génn ak jëf jeeg jaamu yàlla yeeg bëgg gi lu baax aljana rek les ca bëgg di ko jàng nag ci gannaaw julli gu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadisu abi umama muy xadis bu wér mu ne man qaraa dubra kulli salatin maktuba ayat al kursi képp koo xam ne jullik farata gune soo ko jullee ba noppi da nga jàng ayatul kursi lam yamnahu min duxuli al illa al mawt dara teewu ko tebbi tabbi àjjana lu dul dee faato rek moo dox digganteem ak àjjana yàlla na sunu borom tabaaraka wa taala may loola suñ duggee ci biir laay ji dañuy gis ne dafa tàmbalee ci allahu laa ilaha illa hu loolu mooy wone ne sunu borom tabaaraka wa taala moom rek moo yeyoo li ñuy wax uluhiya moom rekk mooy yàlla ku dul yàlla doo yàlla sunu borom tabaraka wa taala rek moo yeyoo ñu di ko jaamu kudul moom di su ko jaamu jaamu keneen kudul yàlla wala lu toll ni tarfaatal ayni ci ak jaamu jële ko ci yàlla jëmale ko ci mbindeef moo xam mbindeefum aw doj la walla bant la walla nit la walla mala la loolu ak réer gu metti la ak bokkaale la mbewte la waaye musiba la ci kaw ko koy def itam mu teg ca ne alxayu alqayuum alxayu alqayuum mooy aji dund ja dund gu wér ga ndax dund gu wér kët mooy dund gu tàmbalewul fenn te du yem fenn waaye dund gu am fu muy tàmbalee am fu muy yem googa dund du dund gu wér ga moo tax alxayu suñ ko waxee rek ca sun borom tabaraka wa taala la jëm alqayuum bu ko waxee mooy ki nga xam ne mooy sukkandiku ci boppam ci lépp te soxlawu sukkandiku ci kenn te keneen ku dul moom ku ne ngir nga sukkandiku faw nga dellu ci moom ndax nga am loo sukkandiku kooku mooy alqayuum moo tax mboolem maanaa yuy dellu ci ak dund gu mat canam yàlla ci sunu borom tabaraka wa taala kàddu goo gi da koy joxe moom rekk mooy koo xam ne doyloo na boppam te kenn ku mën a doon aajawoo nga ko ci sa dund waaye aajawoo nga ko ci sa des fi itam fan yi nga xam ne moom nga fi am moo xam nu mu toll kon kooku mooy alxayu alqayuum moo tax borom bi tabaraka wa taala ne wa min ayatihi an taquuma alsamaau wal ardu bi amrih bokk na ci ay kéemaanam moom sunu borom tabaraka wa taala mooy asamaan ak suuf ak li dox seen diggante kenn ku ci nekk fa mu nekk ak na mu mel ci ndigalul sunu borom tabaraka wa taala la fa nekke waaye noona it la fa mele nam mel wax na yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allahi wallahu huwa alganiyu alhamid yéen nit ñi yéen ñëpp yaa ayuha nnaas yéen ñëpp yonent yaag wàlli yu nit ñu baax ñaag ñu baaxul ñaak yéefar yaag jullit yaag yéen ñépp antumul fuqaraau ila allah yéen ñépp yéenay ñi soxlawoo seen borom kenn du ci dund lu dul yàlla la dundal kenn du ci mos wërsëg lu dul yàlla la wërsëgal kenn du ci noyyi lu dul yàlla la jox ngelawam كن أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يلا موي كيغا خامني موم دويلو نا بوبم سوخلو ول كنين كون بو سيتنتلي لاي جي موي ال يالا نياري نياري واتي موي الحي القيوم داي تولوك الصمد جان رومبون تي سوره الاخلاص bokk na ci liy wone mat gi nga xam ne matuk sunu borom tabaraka wa taala mat na ko ci ak dund mooy lim ne laa taxuduhu sinatun walla naw sinatun mooy ngëmmeen wala nawm mooy nelaw yàlla du gëmmeentu du nelaw yàlla du gëmmeentu du nelaw moo tax kuy gëmmeentoo ko nelaw xamal ne du yàlla kuy sojo ko wér xamal ne du yàlla sunu borom tabaraka wa taala rek moo yore melokaan woowu ki lépp di dund ci ak dundalam lépp di taxaw ci ak taxawalam lépp di dëgër ci ak dëgëralam la ko tàmbalee ci la gën a rëy ci mbindeef yi muy arash ba ci la gën a néew ci tolluwaay muy atom zarra la ko tàmbalee ci li ci gën a rëy ba ci li ci gën a tuuti la ko taw téye ko mooy sunu borom tabaraka wa kon kooko bu doon gëmmeentu wala muy nelaw kon ba tey àdduna moom tasaaroona bu yàgg a yàgg ndax yow mi nga xam ne yaay doom aadama boo bëggoon a taxaw benn butéel nga tàllal ko ci sa loxo bii taxaw ci perang bëgg fa am 24 heures balaa mat da nga jeexu sa loxo bi wàcc butéel ba daanu toj ki taw alsamawat wal ard nag wa ma baynahuma asamaan ak suuf ak li ci suufam ka ko taw su fekkoo ne day gëmmeentu wala muy nelaw kon ba tey kenn waxatu ko sunu borom tabaraka wa taala teg ca ne lahu ma fi samawati wa ma fi al ard li nekk ci asamaan ya ak li nekk ci suuf yi asamaan yi yu bari la suuf yi yu bari la lu ci nekk sunu boroom tabaraka wa wax nanu ne juróom-ñaar la juróom-ñaar yooyu nag moom rekk moo xam asamaan su ci nekk fan la tàmbale ak fan la yam suuf yooyu it moom rekk moo xam suuf su ci nekk fan la tàmbale ak fan la yam boo demee doomu aadama li ñuy xóot xóot ci ay gëstu ak li ñuy bari bari ay pexe ak li ñuy bari bari ay jumtuwaay boo demee seen gëstu yépp weesoogul seen asamaan la ca tegook la koy ñaareel ak ñetteel ko ñeenteel ko juróomeel ko juróom-benneel ko ba ci juróom-ñaareel ba boo demee loola lu toll ne tarfatul ni kenn xamu ko ca kon sunu borom tabaaraka wa taala rek moo xam asamaan yooyu ak suuf yi ak li nekk ci diggante bi waaye doy na la yow jaam bi nga xam ne loolu lépp sa boroom tabaraka moo ko moom moo ko bind moo ko moom moo koy conduire di ko settantal mbooleem lu fa nekkit ay jaamam lañ yoo xam ne moo leen moom te it ci sultaanam lañ nekk moo leen di digal ñuy def moo leen di tere ñuy bàyyi lu jot ci ñoom mooy wax ne na am loola daal di am كوكو ما يسون برون تبارك وتعالى موتاخ نينا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا نينا امول لن لو نيك تي اسماني اك سوفي لودول بيسنغي نيو كين كو تي نادا نغا دوك دوكي وي س وي سي بروم دون اب جام لقد احصاهم وعدهم عدا نينا نيوم نييب ريسونس نالين با خام لين لم لين با لوم مسا بيند لو نيك خامنا نياتا wa kulluhum aatihi yowma alqiyaamati farda li ñuy bari bari kenn ku ci ne yowmal qiyaam da nga ñëw wuy si sa boroom yow dong fardan nga xam ne doo ànd ak kenn mu teg ca ne man da alladi yashfau indahu illa bi idni kan mooy ram fa sun borom tabaraka wa taala lu dul ci kaw ndigalam lay tege waroom daraja yaag waroom man-man yaag waroom pexe yaag waroom doole ya ñépp kenn ku ci ne toroxlu nga fa sa kanam boroom wa anatil wujuhu li rahman kenn ku nekk da ngay sëgg bisa ngi ñëw wax ne kenn ku nekk da ngay sëgg yonent ya nga xam ne ñoom la nit ñi di wuy ji ak leen yaakaar seenu ñaan bis boobee mooy sallim sallim kenn ku ne da ngaa bëgg a mucc kon ràmm di tinu nit li ñu tudde ram borom bi tabaraka wa taala moo ko moom qul lillahi alshafaatu jamia borom bi tabaraka wa taala moo moom mboolem ak ram ndax lahu mulku samawati wal ard ki moom asamaan ak suuf kooko leneen luy dox ci diggante bi lu moomut amu fa kon kuñ ci mosal dara moo la koy jox maanaam ku ñuy may ngay tinu bu bis boobaa tiinu ga la muy firi mooy yëkkati nit mu dem ci daraja ju ëpp jëm toogoon ca ajjana walla koo xam ne ay bakkaaram ak i tuyaabaam tolloo nañ mu nekk ci deng-deng sunu borom tabaraka wa digal jëm kooka ñaan ñi nottal ay tuyaabaam mu tàbbi ajjana kookee ko yàlla di digal mu di ko def nag kooka ngërëmul yàllaa tax man dafa bëgg feeñalal bindeef yi ne diw mii da koo gërëm moo tax mu ne ko tinul diw sàngam mais mu tinu ko mu bàyyi ko mu dugg àjjana wala mu tinu ko mu yéege ko fu gën a kawe mu nekkoon kon kay tinu day nekk nituk tawxiid kuy wéetal yàlla day nekk nituk sunna ku jàpp ci alxuraan ak sunna day doon koo xam ne lépp lu muy def wala mu di ko wax yàlla kese moo tax dund ca loola ba fekki boroomam yeyoo boroomam teral ko ci kanam bindeef yi di ko wax ne ko demal tiinu diw sàngam am na nit ñi symbole bu ñuy def boo xam ne dafay mel ne day firndeel loolu léeg-léeg ñuy joxe ay piri am ay kilifa yoo xam ne dañuy teew ci jataay bi ñuy yëkkati di jox kee ne sëñ diw sàngam na ñëw jël ko jox ko ko sëñ diw sàngam moom it dafa am màqaama fa kay joxe moo tax ñu woo ko mu ñëw di ko jox kookee loolu yi misaal la ci tiraanga ji nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala da koy teral ay jëmm bu bis boobaa ngir seen tawxiid ak ngërëm loo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf leen ko gërëm kañuy tinu it day fekk mu faatuwaale tawxiid waaye ku yóbbaale dara ci shirk kenn kenn kenn mënu koo tinu ku yóbbaale shirk faatuwaale ko kenn tanewule ca yàlla nañu yàlla musal ca loola inna allaha la yaxfiru an yushraka bih wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha borom bi tabaraka wa taala du jéggal kenn ku faatuwaale bokkaale leneen lu nit ki mën a def ci bàkkaar nag borom bi tabaraka wa taala mën na ko ko jéggal su fekkee da ko faatuwaale waaye shirk moom tuub rek bala ngaa faatu tuub bàyyi ko rek moo ci mën a musal doomu aadama mbokki jullit yi bu fekkee settental nañ lii ñu jote gu ne jàng ci laaya ji te foofu lañ ci yem tey danañ gis ne ay njàngat yu yéemee ngi ci biir yoo xam ne saar wi walla laaya ji jàngal nanu ko ba ci njëkk moo di xame nañ ci kàddu yi ne laaya ji gën a màgg ci alquranul karim kon mooy aayatul kursi comme ni nga xamee ne suuratul ixlaas mooy saar bi gën a màgg ci saari alxuraan yi ñaari bind yooyu nag dañu lay jàngal ne kon ndeke waxi sunu borom tabaraka wa taala ji nga xam ne aw melokaanam la ndeke dana gënante banam yépp tolloo wuñ lépp waxi sunu borom la lépp melokaanu sunu borom la waaye jëmmi waxam ji ci boppam am na ci yu gën am na saar yu saar wu gën saar ya am na laay ju gën laay loolu bind la ñaareel ba moo di ne laay jooji kon day fegal jullit bi seytaane te seytaane mooy noon bu mag bi nga xam ne ku yàqule rek sooy ba nga ne moo la yàqal kon nag jaam bi ngir mu mën a mucc ci moom faw làmmiñam bi dana taqoo ak ayatul kursi di ko jàng fu mu toll fu ne lu gàtt gàtt suba ak ngoon ñetteelu jàngat bi moo di ne saxoo jàng saar wi wala laay ji day tàbbal nit ki àjjana comme neen ko déggee ci xaddis bi léegi dara doxul digganteem ak tàbbi àjjana lu dul faatu ki nga xam ne saxoo na di ko jàng saabu bu jullee jullik farata gum mën a doon ñeenteel ba laay ji boo ko xoolee sun borom tabaraka wa taala daf ko ubbee allahu kàddu gu mag googi nga xam ne kenn mënu ko firi amul weneen làkk woo xam ne mën nga ko ci tuxal firi ko waaye li nga man mooy tegtale ko ba nga xam ne baat bi liñ ci jublu daal mooy ka bind bindee fi mooy ka moom ñëpp mooy ka yeyoo ñu jaamu ko kooku mooy allahu waaye boo ko bëggee tuxal ci weneen làkk da sonn yàlla firiwu ko jë firiwu ko góot firiwu ko baat yi ñuy wax yépp amu ci wenn woo xam ne day tegtale maanaam moom ndax baat boo ci indi bu ne am na feneen fu ñu koy jëfandikoo foo xam ne leneen a koy moom léeg léegi nga ñu ne kii mooy yàlla yi nangam wala ñii dajale def seen yëf ne lii mooy sun yàlla noonu di ko jaamu mu di xiram waaye mooy sun allahu kenn mënu koo wax baat boobu sun borom tabaraka wa moom la ubbee ayatul kursi lu ca tegu laa ilaha illa hu nga xam ne ci la nit ki di duggee ci lislaam ku jeng ci lislaam itam kaddu googu ci nga jeng ku sa tawxiid yàqu ku ne ci ñàkk amal kàddu googi gi la sa tawxid yàqoo laa ilaha illa hu kon ubbee ko nga xam ne lépp dafa dellu ci tawxidul uluhiya tawxid bii wane ne sunu borom tabaraka wa taala moom rek mooy yàlla te sunu borom tabaraka wa taala rek moo yooyu ñu jaamu ko mooy ki bind bindeef moo leen moom moo leen di dundal moo leen di rey mooy ki jagoo melokaan ya ak tur yu sell ya te lépp lu dig wàññi ko jëmul ci moom ubbe sar lay ji lolou lim lay tektal modi xaj bobu ci xaji tawhid ni ko tudde tawhidul uluhiyya kep ku ko selal sa diine selna da xéti tawhid yi ci dess yépp dañuy daal sel waye ku ca yàqule mboolem sa xéti tawhid yi ci dess yépp day yàqu yàlla ñu yàlla musal ci lolo juromel ba modi ne mbindef day mbindef ak lu maqaamaam kawe kawe manzilaam muy ab tolluwaayam lu mu rëy rëy fa bëti nit ñi ak lu mu màgg màgg ku tuuti la ku ñàkk pexe la ku aaja wa boroomam la faqiir la antum alfuqaraau ila allah kon num mën a toll ak dundam aaja woon na ci boroomam des gi mu fiy des fan yam fay am aaja woon na ci boroomam kenn mënta won sa gannaaw boroom ba la nga am nga mën koo doyloo amut juróom-benneel ba moo di bokk na ci yi wone nag yi sun borom tabaraka jagoo moo di sell ak mucc gi nga xam ne sun borom tabaraka wa mucc na ko ci lépp loo xam ne xeetu manki la ku dul gëmmeentu du nelaw xam nga ne kooku wépp melokaan wax ne melokaanu manki la kooku sori na la juróom-ñaareel ba moo di li won borom bi tabaraka wa taala tawxidu rububiyaam muy moomeel gi nga xam ne moom la moom bindee fi ak bind gi leen bind lii wone mat gi mat mooy yaatu gi nga xam ne nguuram gi yaatu na ko nguurug sunu borom tabaraka wa taala mbokki jullit yi lu yaatu la nguur goo xam ne labal na asamaan ya ak suuf ya ak lépp lu dox ci seen diggante nguur googi yaatu na de asamaan yi rekk bu ñu la waxoon lu mu doon da nga mën a sànni sam xel mu dem a dem ba àgg fa mën a yem ci frontière mu taxaw fa jommi jaaxle ca lam jot weesu te fekk lam jisul wala la ñëwagul a ëpp lam weesu fuuf boroom xam-xam yi nga xam ne seeni gëstu dafa aju ci wàllu jaww ci nouvelle technologie bi nga xam ne moo am ci liñ jotagoon a trouvé ci groupe bi nga xam ne ñoo wër sun jant bi sun jant bii nun nga xam ne ay planète da ko wër suuf mi nekk ci benn planète am yeneen ba mu dib lim foofu benn groupe la la yàlla bind ci ay groupe yu toll noonu moom rekk moo ko xam waaye ñii gëstu ci groupe bii dañ ne jot jotagoon nañoo trouver ci ay planète loo xam ne mat na cent milliards ci ay planète yu bokk ci groupe bu jant bii te planète yooyu nga xam ne bu ne planète day mel ne suuf boo ci nekk ba ne day am ay biddiw yooyu séen ñu ne benn planète bu nekk lu mat cent milliards ci ay biddiw yuy tàkk ña nga fa yoo xam ne yenn yi ña nga leen di séen yu ci des seenuñu leen biddiw yi buñ tàkkee leer ga day ñëw am na ci yoo xam ne seen leer ga fa muy dépare bu dee ñëw balaa agsi fii fi noonu fi suuf ban koy séen asamaan day setaat kenn duutu ko gis te kenn ku nekk xam ne ne leer vitesse bi muy daw gaaw na gaawaay boo xam ne xel xawu ko mën a dab moo tax buñ ne la ak leer mën naa tàkk di dem am at agul ci dara ni mu gaawe xoola boo jëloonu torche taal ko diggante fi nga koy taale ak fa muy àgge ca miir ba munoo xam nu gaawe ñu wax la ne am na biddiw yu nekk ci sa planète yoo xam ne dañuy tàkk guddi leer ga di ñëw du mën a agsi ndax balaa agsi set jant bi fenkaat mu làquwaat am ay leer yoo xam ne mën naa am lu mat nangami téeméeri at te du agsi fi nga nekk te loolu lépp ñu ne la ci benn planète la ñu teg ca ne li ñu jotagoon a trouvé ci àdduna bépp ci loo xam ay biddiw la mat na ñaari trillion trillion nag bu ñu ko waxee mooy junni milliard mbokki jullit yi milliard mooy junni million booy wàññi million ba mu nekk junni am nga benn milliard booy waññi milliard moom yi ba mu nekk junni am nga trillion ñu ne la liñ jote jotagoon a gis ci ay biddiw yoo xam ne ñoom ci seeni machine machine yi calcule na ko ba bind chiffre bi ñaari junni milliards ëpp na ko sax lañu wax waxuñu ne moom la waaye ëpp na ko lii lépp ak nañu soree ak dénd ba ñu nekk na mu yaatoo lépp doon moomeel sunu borom tabaraka wa taala nga xam ne boo ko doon comparé ak nun fii nu nekk nun doom aadama ak sun coow lu bareek suñuy yëngatoog suñuy dugg ak génn lépp day mel ne benn tomb benn point boo bind xam naa ci ëb miir wala lu yaato yaatu nga ñëw tomb ko ca noonu lay mel kon kooku mbokki jullit yi mooy borom bi mi nga xam ne tabaraka wa taala moo wax ci boppam ne lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihinna nee na moo moom asamaan ya ak suuf ya ak la ca biir teg ca ne wa huwa ala kulli shayin qadir mooy ki nga xam ne lépp la man lépp la man mbokki jullit yi juróom-ñetteel bi ni mu jële moo di ram moom yi nu doon tudd léegi nga xam ne nit ñi dañ koy faral di tudd lu bari ba àgg ci sax léeg-léeg mel ni nit ñi dañ koy jaayanteeg di ko wecceente defe ne marché la boo xam ne mën ngaa neexal nit mu bokk ci ñu lay ram mën ngaa fexe ba liggéeyal nit mu ne da lay ram yooyu yi nga xam ne nit ñaa ngi koy weccente di ko jëflente mu mel ne moneeg lu ñuy jaayante gën naa rëy loolu gën naa rëy loolu bisa ngi ñëw yonent yi allahuma sallim lañu wax sallim sallim yal naa mucc yowma yafiru almaru min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa banihi borom bi te caateeg ne li kulli mriin minhum yowma idin sha'nun yuxni nee na kenn ku nekk bisa ngi ñëw boo xam ne ku ne am nga loola doy sëkk kon toog fii di jaayante ay ramm loola mbirum sunu borom tabaraka wa taala ëpp na ko ramm googi ñaari charte mooy tax mu am benn bi mooy ki ñuy ramm na bokk ci waa tawxiid ka koy ramm na doon ko sunu borom tabaraka wa gërëmloo du ko gërëmloo mukk te moom it bokkul ci waa tawxiid kon ahlu tawxiid ak ahlu sunna ñooy rammante waaye ku bokkul ca loola bokkoo ca yal na nu sun borom tabaaraka wa taala boole ci ñey ram te bañ noo boole ci ñiy toog di xaar leen ram foofu la yitte jullit war a toll fexe ginnaaw ram am na góor-góorlu fedd si sa laxasaay ba ëllëgee ña ñuy ràmmloo nga bokk ca waaye bul ne dama fas yéene tàllal samay loxo di ñaan ñi ràmm ma ah xanaa ràmmuk sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kenn mënta góor-góorlu moom ba jot ko te borom bi tabaraka wa taala moom lay jox ràmm ga gën a kawe ci raw yi اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله